حسرا حسرا أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى أجا قلبي قلبي من خيال قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى أجا قلبي من خيال أجا قلبي من خير mbokk yi safoo 7TV bisimilah ci xibaar yi njagleel ak gàmmug ren jile ñu ngi fii ci euh, Tivaouane dañu koy euh, tàmbali ak tukki nemeeku bi nga xam ne turé mi Macky Sall amal na ko ni ki sànq gisante xalif général di Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour wetu ci woon ndax moo ngi Elimaanu Joxuram Amadou Ba ñëw àndoon waxtaan wi nag yaatu na loolu waaye nag jàppale nañu turé mi Macky Sall rafetlu na bu baax a baax tam yi nga xam ne euh, tànn nañ ko attimile jàpp na daal njëriñ la ci askanu sunu gaal waaye tam sàkku ci xalif général di Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour moomal ay ñaan ci réew mi rawatina wàllum jàmm dañ ci teelu compte rendu bu Momar Cissé ak Momar Mbengue ci ab délégation bu takku ànd ceeg ki nga xam mooy ilimaanu jëruñ ji di Amadou Ba ak njiitu conseil économique social environnemental di Abdoulaye Daouda Diallo ak ñeneen ñi nga xam ne ay personnalité bokk ci état bi Macky Sall ki nga xam ne kat mooy xalifa général de Tidiane moo ko dalal la ginnaaw loolu nag ca la daal di yaa dikkaate ci 122e édition bi ci tam bi nga xam ne moo delluwaat ci njàngale me ki nga xam mooy sang bu tedd bi te ñun ci mën a orienté ay génération lañ ci wax mooy grâce à lui l'islam son épanouissement dans ce pays qui est le Sénégal en créant des écoles coraniques, des mosquées et des avions loolu dafa nekk loo xam ne ay témoignage la kon bu ñu ñëwee ci bés bi ginnaaw waxtaan tànn suñu biir réew war nañu dem di def témoignage. Macky sàll daal di sàkk ci ndaw ñi ñoom ñu mën a liggéey daal di téye li nga xam ne mooy ndono li. nit da ngay fonk li nga am. senegal dafa am lu fi yàlla def l'islam ñu góor ñu baax lim ñu booleel suñu yi nga xam ne ñoo teeru l'islam tatagal ko daldi ko dugal nag ci biir senegal waaye ñun lépp lu ñu am bu dee jamaa sax ñu bëgg ko def përëm ñu fonk suñu bopp ñu fonk li ñu am loolu nag lu ginnaaw fàttali boobu nag ki nga xam mooy sëriñ Moustapha Sy Djamil ak ki nga xam ne moom mam Maodo ibnu mam Abdou Aziz Sy Dabakh ñoom ñëpp daal dinu kañ Macky Sall laata rek ñu ko daal di yaa ñaanal خيال قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى أجا قلبي من خيال حسرا حسرا أجا قلبي من خيال قد سرى سرى أجا قلبي من خيال قد سرى سرى أجا قلبي من خيال قد سرى سرى أجا قلبي بي من خيال قد سرى قد سرى أجقى أجا قلبي من خيال قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى أجا قلبي من خيال حسرا حسرا أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى baax baax ci dog dog bi lee dañuy wéyal xibaar yi wax ci tënk ni ki tey ci ndaje yi nga xam ne ni doon na kan sëñ Babacar Sy Mansour rafetlu bu baax a baax tukki meeko bi nga xam ne ñu tuddee Macky Sall def na ko jaajëfal ko ci liggéey wu am solo wi nga xam ne sumb na ko ci Tivaouane moo xam wàllum assainissement infrastructure yi waaye itam li nga xam ne rek moo di yeesal itam tabax ay bërëbu fajukaay di ay ponk yu bare bare yoo xam ne kilifa gi rafetlu na ko bu baax a baax daal ci dolli itam fukki at ak ñaar na ak fukki fan ak ñaar ndax liggéey wu am solo bi nga xam ne ñu mi Macky Sall def na ko ci diwaanu ko Tivaouane nekk rek jaajëfal yu mag a mag yoo xam ne rek xalif bi dana ko koy defal ni ki tey jii ka noon jotali ay kàddoom di Serigne Habib Sy euh, Mansour dañuy des ba tey ci ndaje woowu lee ndax jàpp leen ne maire bu Tivaouane euh, di du Diop si rafetlu bu baax a baax liggéey wi nga xam ne comité scientifique bi ñu koy am rawatina euh, thème bi nga xam ne ni tàmm nañ ko jàpp na leen looloo xam ne ni ndaw ñi dinañ ci jàng bu baax a baax waaye itam ñu gindi leen ñu topp jàngale ku tedd ki bi alayhi salaatu wa salaam dañuy teewlu ay kàddu. thème bi thème bi ndax thème waxtaane jikko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek la jikko yonent bi nag mooy jikko yi gën a rafet ci àddina mooy gën a mooy jikko yi nga xam ne moom kenn jullit bu nekk bugg am te jullit bu nekk moom nga war a am vraiment dañ si am solo dafa am solo que ñu fàttaliwaat xale yi ne jikko yu baax ñi nga xam ne moo nekk ci yonent bi moom mooy jikko yi nga xam ne moom la ñu war a doxe loolu moo tax ñu defaat thème bi ren pour que nit ñi indiwaat jikko yonent bi nit ñi fat seen bopp xam ne suñuy maam ak suñuy maamaati maam te lañ toppoon ba heure bi ba ñun ñu mun a toll fu ñu toll di tedd ñoom it buñ ci toggee buñ ci jaaree daañu ah. tedd tedd te bañ wut yu bees ndax lu bees lu nekk da koy formé xëy na la ko njëriñam la cee seet mais seet ci njëriñu li nga xam ne moom mooy population lu mooy loolu ni ki tey ji ci altine ji ci Tiwaawoon daanaka taw bu métti moo leen yee ay koñ yu bëri nag daanaka ndox ma bali fa loolu ba tax nag jafe-jafe yi nga xam ne rek am nañ ko ci wàllum assainissement gën a génn askan wi nga xam ne ñoo fi yewoo di ko jooy jàpp ne daal ñoom ñee lu ne def nañ ko bu baax nag ni topp ci ginnaaw kilifa ñu jël ci daal ay saafara ci na mu gën a gaawe lu nu mel nag jàmp na ndax daal saa bu euh, euh, nawet jotee rawatina bu tawee ba noppi ay jafe-jafe yu mag la ñuy jànkonteel dañ ci ànd ak Awa ak Papa Diop saa bu tawee fii ci Tiwaawoon dëkkuwaay yu bari day fees dell ak ndox bokk na ca jidda kër xaali ak feneen lu ni mel nag jural askan wi ay jafe-jafe yu bari. ndox mi daal moom foo ko tàkk si Tiwaawoon moom bari na waaw ah, susu rawatina aussi travaux yi nuy tàmbali parce que travaux yi dafa tombé gàmm gi yoo xamante ni tey loo gas euh, xat na daal doy na waar. dañ doon def buntu kër gu nekk day joxe vingt mille francs ñu jënd ay camion xeer. def ko fii mbedd mi noonu la meloon léegi nag fee ba mu bañ ko sëkkee ba mu fees ndox mi wàcc fii te lii xam nga ne rafetul ci gàmm ba pare kër yi wër ko nii. dawalkatu scooter yi tamit taw yi sonal na leen bu baax a baax ndax nag dañuy ñàkk tànk bu bëree bëri ndax ne dañuy wiiri ba sonn. Tivaouane moom souvent kay moom bu xiinee sa mu taa parce que bëri na fu muy taa ndox waaw. instant bi suñu liggéey bi sax pour nga liggéey sa problème lay doon quoi en plus lu mel. doo si xam looy def vraiment métti na moom métti na. livraison bi laa nekk ni si ginaar la donc ko commandé ginaar bi mais presque def naa ko 30 minutes ci yoon bi. soxna si moom ne lu ni mel mu ngi koy dund ay at a ngi nii waral muy sàkku ci kilifa yi ñu utal leen ci ay saafara. gis nga nit ñi seetaane de lu nekk nag def nañ ko ci wut nañ ay xeer def ci barki démb rek lañ fi sotti ay sareet xeer mais lii xam nga ne maire bi moo ñu ci war a dimbali manqal ñu ndox mais dañu seetaan ah kuñ ci dimbale rek nag la bëgg wax dëgg yàlla. te moo ne cité religieuse bii di Tivaouane am na ab programme d'assainissement boo xam ne nguuru Sénégal ngir ñu tàbbi ci gàmmu gile jàppale nag taalibe ñu ngi ba fu ne ci ak ruxaan fii ci Sénégal ngir a fekke si gàmmu gi fii ci euh, Tivaouane euh, ñoom ñe nag jàppale ne daal ñu ngi koy waaj rawatina ni ki tey ji ci altine ji nga xam ne euh, ci la ñuy tëj burdu bi mu yemoo ak fukkeel bi guddi ñu koy amal mu nekk nag solo suuree ci tijaan yi dañ ci ànd ak Matar Bari altine ñaar fukki fan juróom ci la ñuy jeexal burdu bi nga xam ne dañ koy amal ci wàccaayu gàmmu gi burda mu ngi signifie manteau doon référence ci benn yére boo xam ne yonent bi mayoon na ko benn poète gannaaw ay kàddu yu rafet lu mu ko jagleeloon mu doon fukki guddi yu tegloo yoo xam ni dañ ciy amal ay way jagleel ko yonent bi mu doon jamonoy mbégte ci ñi nga xam ne ñoo di tijaan yi ah mbégte rek laa ko dunde ak yëg gu rëy te di si sant yàlla moo tax ma wax la tuddal la maam Maodo ndax moo fi commencé burdu kon yëg-yëg bu rëy la ni suñu tijaan yi nga xam ne ñoo ngi ko jële si suñuy way jur yi tedd yi ñu nàmpatal nu si ba yoonu Tiwaawan gënal nu lu bare bare kon ñoo ñooñu amuñu seen fay. ñenn ci ñoom dañuy taamu dem Tiwaawan ngir teewe li nga xam ne moo di guddi bu mujj bi nga xam ne dafa représenté lu bëri ci ñoom. kontaante ak rafetaay ak euh, bég ak ñaan fi yàlla si barke Sëñ Babacar yal na yàlla faj aaj yëpp si bis te dernier burga bi yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def nu am waaw bési mujj bi mu tombeek la nga xam ni euh, kontaan la depuis nu jógee waalo ba fii parce que sedd guy lu fi yow mu taw nit ñi nit ñi dal suuf si dal nit ñi am am mbégte si si si bis bi kon noo ngay ñaan yàlla lu ñu fi ñaan ak lu ñu fi def yàlla yàlla nangu. Thiané Niang moom Dakar la jigee def na lépp lu mu mën ngir teewee séance bu mujj bi. ca fajar laa ñëw avant 7 fekk na ma fii. yaraax laa dëkk man yaraax laa dëkk ca Elton ba laa dëkk waaye bi mu ñëwee wàcc muy taw taw baa ngi ni jote fan boobu ñu ngi julli fajar pare ñëw egg damaa kontaan yàlla na yàlla àggale yëpp lu dul ba sëñ Bañ Mansour ubbi jumaa ji. gàmmu 2023 dinañ ko amal ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre bi ñu nekk waaye laata loolu taalibe ñoom wutali nañ ci waawana ngir teewe li nga xam ni moo di clôture burdu bi. El Hadji Malick bi nag njaboot yi ñu ngi waajal bu baax a baax teertu gan yi moo xam uh, fu ñu mën ci jógee seen ci ay kër nag fi mu ne ñu ngay waajal bu baaxa baax lépp lu jëm ci wàllum ndugg nag ba ci xar lépp rek la ñu matale ngir mën a bernde bu baax a baax askan wi nga xam ne dañuy bawoo seen ci ay gox féetewoo ci Sénégal ñëw fii nag ci uh, Tivaouane ngir a fekkee si gàmm gi ñu nañ daal lu ñu mën seen dinañ ko def seen kéemtulaay kattan ngir ñu lekk ba suur naan ba màndi ndax loolee uh, bokk na rek ci li nga xam ne rek moom la ñu nawee wàllum gàmm waaye itam euh, fexe rek ba topp ci ndigle bi nga xam ne rek moom la yoonu tijaan yaa joxe. ay saaku ceeb ay butéelu diwlin ak itam ndox lu baree bari lépp lañu teg ngir waajal gàmmu gile waaye itam ñëw ak gan yi mère Diaga Gueye dalal ñu këram nekk taalibe Seydi Hadji Malick Sy moom mais mi ngi waajal bu baax a baax guddi gi nga xam ne moom lañu ñu jagleel Seydina Muhammad alayhi salaatu wa ñun daal ñu ngi sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed ñu ngi teeru gan yi di leen xaar bagage yaa ngi ñëw am na yu ñëw am na yu des. ay fan yu néew rek moo des ngeen ñu tàbbu ci gàmmu gilee ñu ngi waajal jumtukaay yu mujj yi. njabootu tàll lépp la ñu def ngir nag seeni gan mën a nekk ci anam yu mucc ayib amul xaj ak seen ñëpp la ñu yemale. kenn du fi jënd añ kenn du fi jënd reer kenn du fi jënd ndékki kenn du fi xiif kenn du fi mar bagage yëpp ngi ci biir gis nga. nag yaa ngi nii dara fu sorewul foofu ay jigéen di génne ñax yi li ñu bëgg rek mooy gën a taaral dëkk bi le set setal dëkk bi set setal fi nu nekk ñun fu nu nekk rek bëgg rek mu set ndax ñun lu set rek la ñu xam ci lan dëkk ci la ñuy dox. góor gi nag moom xelam ci berne yi la nekk nee na daal ay ganam dinañ dem sax ba duñu xam ban ñam lañ bëgg a lekk ndax lépp la ñu def rekk jagle leen ko. pèlerin yi ñëw bernde. kenn du wuti dara fenn li pelerin di soxla yëpp dañ koy fàggu àndil ko ko ba ci ba ci jën yu baax ak ay crevettes. fii ci Tivaouane nag xumbute gi demeegul noonu waaye gan yi daal ñu leen di xaar ngir ñoom ñëpp nag ñu àndandoo màggal guddi yonent bi nga xam ne ñu ngi ko dëdmal alarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mbaax ba tey ci gàmmu gilee jàppale na nag ñi nga xam ne rek ñoo tàllibe tijaan yi ña ngay woy nag yu topp jàngale waaye itam ndigal Seydi Hadji Malick Sy bokk na ci euh, saabu gàmmu rek di ko dëtmale dañuy rek yokku njàngum ak alxuraan gilee waaye itam euh, jàng rek li nga xam ne rek euh, moo di xasida yi nga xam ne rek bind nañ ko jagleel ko ñun ci yàlla Muhammad bu ñu ca noppee itam seen ab taxawaay dañu ko gën a ñoŋal ci jamono ji Seydi El Hadji nag li mu wax si gàmmu bare na ay ngëneelu gàmmu période bi daanaka dix jours yi première du premier jusqu'au douzième jour lépp nag ñuy def ko lu dul jàmm mu def ko lépp lu dul jaamu yàlla rek ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko imaamu Buseyri defee si dix jours yëpp léegi ñu noppalu benn fan douzième jour bi doon gàmm alaaji maa ngi nag wax na si xasida mi ala azimu laylal wiladati xisbatan ida lam yakun nahwa alxaraami adulu Seydil Haaji Malick liggéeyam fes na ci àdduna parce que dëkk boo dem ci àdduna ñu nga fay julli di fa wasifa di fa jàng alquran jàngal na ay taalibeem tamit ba jaawele yàlla ak moom parce que dafa ni woon moom wan yàlla nit ñi moo gën ñu koy xam moom soxlawul ku ko xam Tidiane daanaka juróom-ñaari xalifa généraux la ñu daal di eh, am ginnaaw rek génnuk àdduna Seydil Hadji Malick Sy ci atum 1922 jàppale nekk ca njëkk di Cheikh Aboubacar si xalifa bi nga xam ne ni daanaka moo njëkk wutu baayam ci xilafa gi di Serigne Babacar Sy jàppale na daal rakkam ja moo ca topp di Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh waaye itam que ca mujj jàppale ne moo di Serigne si Sy Mansour 7TV di leen xamal xalif yi nga xam ne jot nañu toog ci xilaafal Maodo di sëriñ Babacar Si muy bu njëkk moom moo samp daayiri yi ci atum 1929 ginnaaw ba mu amee fanweeri attaque juróom-ñaar sëriñ Babacar Si Malick moom wax ne kat moom mooy wuutu ki nga xam ni mooy El Hadj Malick Si di bàyyam mu déggoon arab lool sëriñ Babacar Si moom gis ne kat li nga xam ne mooy ubbeeku ci wàllum xel ak li nga xam ne daal mooy ci àdduna bi yëpp daanaka sax lépp la pekk ba tax na li nga xam ne tamit mooy njàng mi njàngale mi loole lu ko soxloon la woon na moom loo bëggoon rek mooy daal di fexe ba tey ndono li laataa muy wuy ji ma sëriñ Mansour si Bal xaw mi moom ma faatu ñeenti fan ginnaaw ba mu toogee ci xilaafa gi ba tax na moom moo fi wutu ki nga xam ne mooy sëñ Babacar Sy xam-xamam foo ko nattoon weesu na ko ba tax na ñi nga xam ne kat mooy fidèle tijaan yi jotoon woon koo gën a xam laataa rek muy ji wuy ji boromam mam Abdou Aziz Sy Dabakh ñu gis ne moom la nga xam ne daal lañ ko mën dàkkantale mooy baax ak rek xel mu yaatu moom wuute woon na fi nga xam ne mooy Maroc Arabie Saoudite États-Unis ak France ak it Mauritanie ba tax na ñu bëree bëri doon ko fa xaar itam ndax gis nañ ne li nga xam ne tamit mooy wàlluma islam da ko maîtrisoon lool discours ba mu def fa nga xam ne moo di Makka ak congrès islamique bii nga xam ne kenn dootu ko fàtte loolee mooy yëmloo arab yi sëñ Mouhamadul Mansour ñu gën ko xamee ci borom daara yi wala borom sañse bi sëñ Mouhamadul Mansour nekk fi xalifa général di Tidiane ci atum 1997 daanaka dundam gépp mi ngi ko daal di jagleel njàngum alxuraan ak di ko wasaare ñu gën koo xam ci wàllum ubbeeku ak ki nga xam ne tamit mooy borom daara yi moom gën baax lool ba tax na wàllum sagesse gën koo pekk moom mi ngi woon ci jamono ju nga xam ne kat dafa daan gënoon marqué ci crise de valeurs ba tax na moom la mu bëggoon ñu tamit fexe ba noonu Maodo lii bañoon mujjee ci loxo ca noonu yi tamit la ko gën a téye téye ko laataa muy wuy ji boromam ka ca toftalu di maam si Ahmed Tidiane si almaktoom ñoo gën ko xam ci la mystérieux ba tax na moom mi ngi daal di yaa màggee fa nga xam ne kat mooy ci wetu sëñ Saybatu Fall Imam Moussa Niang Serigne Alioune Guèye ay ñeneen mu xaddam ñi nga xam ne baayam moom moo leen tàggal boppam. ca la amee fukki at ak juróom benn ca la bindee téeram bu njëkk gi tuddee ko le fils des marabouts dundam yëpp ak li nga xam ne tamit jot nañ koo jàngee mooy xam-xam piir ndax it li nga xam ne daal moom jot na koo peek lool tax na mu daal di koy wasaare ci askan wi yëpp sëñ Abdou si Al Amin daal koy wuutu moom nag ñu gën koo xam l'unificateur di dajalekat moom lañ ko gën a ràññee mooy porte parole ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon xalif général de Tidiane ca noonu itam rek gënoon a peek wàlluma njàngum alxuraan laata mu koy wasaare moom nekkoon fii nga xam ne moo daan dajale ak di wasaare njàngale mag ñi. ki xam nag moo toog ci xilaafa gile di sëriñ Babacar Sy Mansour lañ ko ràññeetle mooy kàddu dëgg ak wàllum jàmm ak wàllum justice. moom sëñ Babacar Sy Mansour mi ngi gane àdduna ci yaa 1932 ñu bëri jàpp ne kàddoom dëgg rek moo ko lal ndax it amut ci jiixi jaaxa moom sëñ Babacar Sy Mansour mi moo wuutu sëñ abdu Aziz Al Amin jërëjëf Momar Cissé mbokki firi jaari bu jotaayu xibaar yi jaajëf fa leen bu baax ci tallu bi ànd beek 7TV lenge dañ ko njëbbal waa Ndakaaru eh, ci kanam tuuti di ngeen eh, gis xabaar yi ci kalamel la salaan nga ci ànd ak Germaine Diouf jaa ngeen jëf